Hier, lors de la réunion du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République APR, des militants du président Maxal ont soulevé la question du troisième mandat, demandant au chef de l'État de déposer sa candidature pour un mandat de plus. Mais le chef de l'État a haussé le ton, refusant encore de se prononcer sur la question. À l'occasion de la Coupe du Monde, une décision de la Fédération sénégalaise de football en collaboration avec la douane interdit l'entrée et la vente du maillot de l'équipe nationale à l'exception de la fédération. Face à cette situation, les commerçants de Sandaga et de Colobane qui ont déjà fait d'importantes commandes en maillot, euh, comme ils l'ont toujours fait en pareille occasion, euh, tiennent un point de presse pour dénoncer cette euh, décision surprenante tardive et à la limite abusive et interpeller le président Macky Sall, peut-on lire dans un communiqué reçu à la rédaction. Du nouveau dans l'affaire de la fille retrouvée morte samedi dernier dans la forêt de Ndjokel à Kaulak, la victime, une fille de 17 ans, a été abandonnée en pleine brousse entre les villages de Djomkhel et de Ndjokel Peul. La défunte a été identifiée au nom de Fatou Samb. Les premiers éléments de l'enquête révèlent une mort euh, abominable. Selon Libération, elle a été violée avant d'être tuée. Plusieurs euh, blessures profondes ont été constatées sur la dépouille. En Afrique, cinq Congolais qui nient les faits ont comparu ce mercredi devant la justice militaire à Kinshasa pour euh, l'assassinat en 2021 dans l'est de la RDC de l'ambassadeur d'Italie, Luca Atanasio, tué par balle après avoir été pris dans une embuscade, a constaté une équipe de l'AFP. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan exhorte les femmes à avoir moins d'enfants et à envisager le recours à la contraception pour atténuer la pression démographique sur les ressources nationales. Selon la Banque mondiale, la Tanzanie a l'un des plus forts taux de natalité d'Afrique de l'Est. Sur l'international, le président, le président, Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi 19 octobre de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, en septembre par Moscou. Vladimir Poutine a annoncé cette de son conseil de sécurité diffusé à la télévision. Le Kremlin a ensuite publié un décret annonçant l'entrée en vigueur de la loi martiale dans ses territoires à partir de jeudi minuit. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.